bi bi gën a riche Sénégal fi mu ne nekkatul chômeur. nekkatul chômeur te mu ngi ak wecc itam tubaarkàlla xam nga wolof day wax ni borom day ji liggéeyu. dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko yéenee diñee dibi lay reere teg ci boisson ak dix mille ci poche am yu mu xëy ndekkee doom day ji liggéey. wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha xadi est-ce que xam nga ni kéwal. mooy bayu àll. moo gën a suur bayu kër. est-ce que xam nga ni biif lu nag àll la kenn xontu ko. mooy xont boppam te moo gën a suur nagu kër. lépp lu yàlla bind li koy regloo mu ngi ci loxo yàlla. Mm-hmm. xadi xam nga ni est-ce que xam nga ni am na mbindeefu yàlla yuy dund ba dee ba nekk mag màgget bi jaaw chaque jour yàpp wu bees lañuy lekk te du ñu mus a fandee. Mm-hmm. cest dafa am doxalin boo xam ne dafa salte kilifa dafay jëllale dafay jéggale da ngay gis jekku mais da ngay baale parce que yàgg fët bu yàggee dafay am ñoo xam dañuy dimbali te duñ dañ ciy sot te duñ ci sax rendre te boo jiitee danga soxla ay soppe li ko commencé ci président ma ki Sall ba ci njabootam yi gën a suufee ci gouvernement bi ay soppe la ñu gën a soxla ko ay noon mhm. te am na doxalin woo xam ne boo ko defee fii Sénégal def lay sababal ay noon jaru ko kii ndaw la accident dal na ko ci liggéeyam parce que li dal capitaine Touré accident la mhm. mais ñëpp nangul ko ak njàmbaaram ñëpp nangul ko xam-xamam mu daw làqatuwaat faneen mais bul ko topp bàyyi ko parce que bu moom sax nga tenir compte ci njaboot gi muy dundal nga tenir compte ci ni moom bind na histoire am ba noppi turam ci histoire Sénégal dootul effacé wu et kan moo la wax ni ëllëg du duggaat gendarmerie nationale décision moo ko fa jëlee décision mun na ko fa dugalaat moo tax lu ma te tey la nañu ko bàyyi mu dund ci jàmm loolu mooy def noblesse ci ñoom mooy def noblesse ci euh, doxalin cohésion sociale bi nga xam moom la ñu bëgg nga la waay bu ñu indi mukk perturbation mm-hmm. bu ñu indi mukk saboté nañ ko bàyyi ci fii mu sëgg di fa ay peppam ngir mën a nuuri njabootam te ñu bañ a gàkkal seen bopp ku nekk soo sëkk mhm. euh, fii ñu ñu ko teg euh, Abdoulaye ndax nguur gi amaat nañu sañ-sañ jë jëlee ko fa euh, dafa naa ne dafa dafa bokkut parce que fële xam nga dafa nekk institut privé boo xam ne ay kay ay kay de charge duñ ko tënk mhm. jëmale ko si li nga xam ne moo di ministère de l'enseignement supérieur donc ñoom mun nañu trouver lépp li nga xam ne mooy blocage par rapport ak li nga xam ne mooy lañ ko dënkoon moo waroon ko mën a jàngale xëy na ni ministère bi si boppam sax àdduna si ba joxe si ay explication waaye xam nga fii dañoo nekk si li nga xam ne démembrement état la waaye ville la moo xam maanaam collectivité la mu di mu di Ndakaaru que fa jiite nag di maire am na sañ-sañ effectivement xool kan kan moo ko doy mu jël ko sécurité parce que booy xool même sécurité maire bi mhm. du élément wu BIP du élément wu GIGN ay élément garde rapproché la yoo xam ne amaana moom mooy tànn ku ko neex daal di la fay samp

la grandeur véritablement des autorités Et assez souvent question de jël décision est-ce que président parce que souvent on ay décision décisions, il y a ndaw est-ce que il faut que l'on évite toujours le sentimentalisme euh, par rapport à l'émotion dans la prise de décision mhm. donc il faut Sénégal citoyen sénégalais le Sénégal judo, Sénégal la Sénégal la servir il a servi sous les drapeaux def naa nag delloo njukkal bi nga koy delloo njukkal gannaaw sanction bi nga xam tek nga ko ko mooy nga bàyyi ko mu wat wërsëgam ci lenen ak fenen ak ñenen def naa ni loolu rek mo am solo Abdoulaye dañuy dess batay ci ville bu euh, Dakar ndax sen bureau municipal ba tass nañu ko ndax respecté wuñu parité bi euh, lolé le cour d'appel bu Dakar, daal di jël ci dogal niki tay euh, mu teunku ci recours bu conseil des sénégalais des femmes euh, bien un bureau euh, municipal un bureau conseil municipal itam dañu ko tas ci melni biscuiterie euh, djeppel wala bile di Mbàkke la nak mom muy koy bu baax ñu déglu ko société civile yop tay dañu àndandoo kontaan waye may rappeler né tay ji li am liggéeyu réseau national de veille et d'alerte euh, bi nga xamné pour la parité nga xamné observatoire national de la parité moko mettre en place li ñu doon out mooy loi bi nga xamné moy la loi sur la parité tey ñoo nangu ben yoon ñukoy koy jalgati loolu moo waral fépp ci Sénégal cette antenne de veille d'alerte yi ñom ñep ñoom ñëpp ñu manko ak seeni coordonnatrice dugal ay recours bi nag recours euh, yi Dakar la concerné bu nous avons la ville de Dakar Biscuiterie Dakar Plateau euh, Dieuppeul Derklé jam Diamniadio Malika yooyu yëpp yi nga xam ne ay tribunal kase na ko tey tey ñu am ci ndam ñu am yaakaar ni euh, lii ndamu jigéen Sénégal yëpp la mais ndamu Sénégal ci boppam la ci wàllu démocratie xeex bu ñu tàmbali woon Abdoulaye laata sax ñuy dem ci élection yi. waaye defe naa ni euh, waruñu sax xaar ba ñuy saisir justice. Mm-hmm. jëm si li nga xam moo di respecter loi. def naa ni euh, ku mu si doon nga xam nguur nga bokk nga xam kujje nga bokk euh, bu la falee liñ la war a fal te nga war a respecter parité def naa ni da nga war a li nga xam moo di parité gi. loi la defe naa ni booy confectionné sa liste di nga fexe Mansour sa liste si boppam boo respecté wul parité bi nuñ ko dippee def naa ni dañ lay daal di dàq liste boobu du bokk donc na mën a fexe. ba booy confectionner liste nga fexe teg góor teg jigéen teg góor teg jigéen ba mu ba mu mat def naa ni tam booy def li nga xamoo ni di bureau bi te loi bi tënk la ci war nga dem nak dans le sens de respecter la loi jox jigéen s'en seen gëdd jox jigéen sen place parce que itam daño bokk ci xeex bi daño bokk ci li nga xam moo ni ngañaay bi nga xam ne gagné nga ko daño bokk ci li nga xam moo campagne bi ñom itam coono yi nga daj mom la ñu daj daf na nak buñu ñu ci ci ndaw ga daf naa ni yomb na yomb nga daal di respecter li nga xam moo parité bi gis nga deug la nam dañ naan la loi masculine domine partout mais loi nak bu xasse ba taxaw mhm. jigéen nak war nga ko mën a place am daf na ni na loolu bureau bi ñu respecter parti bi partout n'a euh, euh, que de besoin ñu respecter parti ba nga effectivement dañu xamne sax qui di laaj xam lan la loi wax. Mm. ba paré mom mi ngi coup teunku te respecter nako euh, de bout en bout. Mansour justement ñak xam loi la wala tayef. ñum mën nek ñumté njuumte mën na itam euphorie bi am ci jamono ñi tan ay conseil municipal ak ay ay ay adjoint au maire di taxawal bureau conseil municipal souvent mën nay tax duñuy ñuy bàyyi xel ci respecter parité bi. Mhm. mais am na ay techniciens yu fa nekk. Mhm. Euh, administra euh, ñi fay teewal administration bi ñoom euh, loolu waru leen yóbbaale war nañu am tey ak mat gu toll ni di recadrer waat bu fekkee tànn teef am na te fekk respecté wuñu loi bi moo tax souvent dañuy poser question présence euh, autorité bi euh, autorité administrative bi lan lay souvent mhm. bu dañuy dem ba tas conseil euh, bureau municipal parce que nañu ko respecté wuñu parité bi ci kanamu autorité bi fay itam poser questions hein mhm. tenir compte lu xel la yoon gis nga bi mhm. yoon ni yoon la gis nga yoon ni mu ci jël décision bi ak ki ñuy jël décision bi ci moom ak ñi nga xam dañu neutre féetalu ñu fenn dañuy xam parce que parité loi la kon nañ ko respecté tas bureau municipal comme noonu la ñuy yuuxoo di dénoncer ci loo yoon gis nga ni mu décision bi mm-hmm. daf leen di noppal bu leen bu ñu day mais du leen parce que conscience

yi matériel yu doy waaru amul njëriñ ci kër gi au détriment de l' exploitation bu dul cabinet jinne mu ngi lay recruter pour ay consultance pour ay étude ah di ko jox ñoo xam ne boo leen dàqee ba ñu sori rek ah boo boo sàgganul gis ni dafa lëkkaloo ak ak ak ñoom loolu nag mënuñu ko nangooti xam nga ci kër goo xam ne tey jii même pour fayeku suñu salaire problème la ñu wax ci wàllub tàggat yaram xam nañu réew Sénégal ñan la ñu nar a jonganteel euh, champion d'Afrique yi ñu ngi nekk ci poule L fekk fa Bénin Mozambique ak euh, Rwanda euh, kan bile war a am fële ci réew Côte d'Ivoire ci atum 2023 dalee ko ñaar fukkeelu